John, Mike. mahama duma fodando go wai dinyo yalo no kataranya to heya sumahama duma fodando go wai dinyo yalo no kataranya to heya bita dawoda abisambala ayi ke bara olela, doli ba fola nyaku faidata hadamadi unelo mandia hadamadi ulo mandia he mojena lonte kilinti almambetan kala mojo ulon wodo kamusoke kumusole maulu wodo bijeto kunimbali ya lemu do fana bije kabiri ya lemu muso tadi wulula a kebasito se dindulo totoje la bulo ye mun dada bulo wole ka bondi mandinkole y'a fo itele y'a fo ni y'a miirɔ muso fai ye tele fai de bisalo wo ɲama duniya fele ni y'a aleti fali yalo wanyama musoni mama kwe kana fo ibati nyala yala dunia kasara muso damoni laro muso teti nyala na tinyata keule yatinya alalo wanyama merite onyuli nyunjige ndanyi warasigi hodupa vinyi waradugu nyanda duna dami nyunjige ndanyi warasigi hodupa vinyi waradugu nyanda duna dami soma hamon duma kataranya tohe ya sumahamun dumago dandago ninyo yalanu mu kataranya tohe ya sumahamun dumago dandago ninyo yalanu mu kataranya tohe ya sumahamun dumago dandago ninyo yalanu mu kataranya tohe ya yeah mangi nuyu képp ku fonk jigéen bége Banjul fii nii ke réeréwul mun de Gambia yëpp wala Gambia yëpp kofiw la tey nag ñu ngi nii fii nii nga xam ne mooy kenn Street foofu lañ nekka nii pour ñëw kuy waxtaan ak suñ benn broda bi nga xam ne mooy Antuman moom mun tam mu ngi nii taxaw mu wax ñu about kofiw bi naka la ko gisee ak dan naka la gisee nga xam ne mooy pandémique bi feebar bi nga xam ne moom kenn réeréwul mbir ne sonal na àdduna bi sonal na ñëpp fu nekka nii ñu bàyyi ko tamit ñu waxtaan ak suñ mbo broda bi nga xam ne moom moo taxaw fii ne moom Antuman Sala Antuman nuyu naa la bro. fay naa la broda na nga def. sant suñu borom. naka nga woon fii. alhamdulilah. waaw ñu ngi leen a welcome fii ci Ken Street. waaw te xam ne fi mu nekk nii ñu ngi ci waxtu boo xam ne yéen ñi nga xam ne yéen ay liggéey ci media bi war ngeen a wóor wax a nit ñi xam luñ seen xalaat ci. pandémique bi waaw waaw Antoumane jërëjëf si li loolu nga wax ne Antoumane gis nañ ne pandémique bi nii maanaam jàngoro bi nii nga xam ne moom la ñu covid 19 sonal nañu trop lan lañ lan lañ mën a def ba nga xam ne lii dinañ ko ëllu ñu ne garab amut feebar bii nii lan lañ mën a sowelloo suñ boppa daal si fi mu nekk nii ñun amuñ dara lu ñu war a def lu dul moytu moytu lañ war a def te moytu bi bi ci njëkka mooy ñu toog ci suñ kër yi boobu moo ci gën a important nañ toog ci suñ kër yi dafa important waaw ku amul soxla bu important bu jàmpa booy dox toogal sa kër ngel la wër bi amul benn njëriñ te li gën a doy waar ci wër bi mooy su fekkee ne yow waxambaane nga wala jang nga wala halel nga sa immune system mu ngi degar yaa ngi def yangi am ñaar ñetti maget sa kër ño xamne demum fen bo sété seetee kiis yi nga xamne sa ño xaful ñi nga xamne ñoy dé dee fi nekk ni muy maget ñi ëpp du ñuy dem fen ñu ngi seen kër yi waye la na leen ko jox seen set yi ñoy gëna ñew dem am ko indi ko seen doom yi ñoy gëna dem am ko indi ko te ñoom ñu ko am du leen def dara dañoo wér kër normal du leen duñ ko ne duñ ko ne benn sign am nañ ko waaye ñoo ñu am ko nag bu ñëwee yow màgget bi nga xam ne yaa ngi ci kër gi sa immune système mu ngi wékk a ah, wala nga am koo xam ne mu ngi feebar diabetes presso yii nii ah seen immune système yi ñu ngi soona yow boo ñëwee wàlla leen ko loolu mun naa doy waar ñoom parce que most of the time boo ñëwee wala ko ñooñu def leen a rey parce que ñoom amuñ immune système xam ne dinañ mën a fayat feebar so moo tax toog kër gi mu important lool ñu uuf suñ njaboot yi ñu toog ñu góor góorgóorlu ñun suñ booba tam ñu toog parce que kilifa gu toogul du mun a wax njabootam mu toog soo li njëkkee mooy yow kilifa gi ci biir kër gi yow yaa war a toog nga mun a téye sa njaboot ñu toog den seconde bi mooy dañ war a sol masque masque bi is very important dañ ko war a sol masque bi nekkut ne yow mi ko amul rek yow la am njëriñ déedéet masque bi ci kim gëna am jëriñ sax moy ko am parce que yo so fa amé wi nga sol mas fo dem do ko wala ket parce que bo tisoolee sa mas la am ñi nga xamné dañoo wax seen gëmé ñi tufli di dem ñi nga xamné fuñ nekk ñu ngi ko ko ñooñu buñ ko wala kenn parce que ñi sol mas seen mas lay am so mas bi is very important yow mi nga xamné dalu la nak so solé mas all the time naka la laa dalee du yomba pour mu dal la waaw ñu ne suñ jógee ci mas suñ jógee ci mas bi ñu ne nañuy raxas suñ loxo yi boobu tam bu nekk beneen bu over important raxas loxo bi dafa over over over important moom tam parce que li tax raxas loxo bi important mooy feebar bi du dugga sa loxo de waaye yow sa loxo yi all the time moom ngaa use pour laal sa gémmiñ laal sa bakken laal sa noppa te points yooyu noonu bu fekkee ne yow laal nga loo ne am na jàngoro bi bo lalé sa gémmiñ sa gémmiñ dafa am pax bu dem sa biir dang ko am so lalé sa noppa sa noppa ci sa système bi la am dang ko am so lalé sa bët sa bët ci sa système bi la nek dang ko am so motax rahas bi dafa over important Li ma fi wax ni kep ko xam yang ko def ah waxuma ne do ko am de way yalla mu na la musal be 99 yow do ko am jërëjëf mbokk yi yéen a ko déggandoor lolu moy garab yi rahas suñ loxoy di sol suñu maxi ba pare ñuy def social distance raxas loxo yi naka lañ ko mën a defee always comme nii rek comme moo woon leen rek ma saaja tuuti man tamit moo woon leen ne affaire nii nga ko dee defee def nii def nii muccal sa boppa muccal keneen muccal sa doom muccal sa raka wala muccal sa jabar nii lañ mën a def pour mën a sowee suñ boppa ñun ñëpp après tamit Ini sol suñ face marché en tout cas ñu ñëwaat si fuu yi gis nañ ne booy dañ dee toog duñ def social distance lan nga am puy wax si loolu waaw mooy dafa delluwaat ci li ma doon wax rek ñun waxambaane yi feebar bi mënut ci ñun lu bari ñun waxambaane yi feebar bi mënut ci ñun lu bari waaye da ngaa xalaat ñi ngaa fekki ca kër ga ku feebar ka nga am kër wala ku màgget ka nga am kër ñooñu nga aar ñooñu ñooñu nga dimbale ba ñoom duñ ci jot social distancing distancing bi dafa over important wan muta leen wax nañ bàyyi toog wéeru wante nañ bàyyi toog jegeñante nañu joxe wan muta distance parce que boobu tam mooy leneen ñoo leneen li nga xam ne moo laa dimbale because wan muta bi bu amee ki nga xam ne moo ko am même bu salut masque bu fekkee ne dafa génnee virus bi ci biir mën a egsi ci yow parce que virus bi mënut a dunda long enough ci air bi bu mun a dem pour mun a romb dox ci wan muta boobu ñëw ci yow so social distancing itam is very very very important waaw leneen li nga xamne nak moy li nga xamne mo nek on te mu ngey ñew door fi moy coffee bi coffee bi dañ ko def pour suñu wérgu yaram dañ ko def pour suñu jamm dañ ko def pour coronavirus bi mu mu fee jógee so nit ñi ngel la tok leen seen kër yi ko lok lañu wax dafa xamul afta lok sax ah lan nit di dox lu nit mun ta dox digante suba bi fukki waxtu waaye waay waay mun na koo dox après loolu kafiwu la ñu wax ne ñu toog suñ kër yi waaw te kafiwu bi nag ah liñ wax day moom mu ngi fa de 5000 dalasi la ñu wax ne moom la ñoo caaj ki fa kuñ jàpp te ñun ñëpp xam nañ ne ñu ngi ci time boo xam ne coronavirus la affaire yi dafa naxari ku la wax ne neex na day nax boppam nga imagine nag fi mu nekk ñu war laa jàpp caaj la 5000 dalasi foo ko génnee soo ko amee sax dina wàññi lu bari ci sa dépense sewne la ñu tok suñu kër yi ten o'clock la be 5 o'clock bo éwo su wala wara dox nga dox jëre ngeen jëf antu Antuman jërëjëf si leeral boobu noonu nga ne yéen a ko déggandoor leeral nañu fofu nonu muy kan antu man antu man ñu délu delluwaat ak ci affaire café bi gis nañ ne suñ mbokki suma mbokk ndongo yi dañ dee riita wante ak police lan nga am kuy wax ñi nga xam ne suñu suñ suma mbokki ndongay di rité wonte ak ñom lan nga am ban advice nga am jox leen waaw li ma leen wax rek moy jaru lan nga am pur proof amuloo dara looy wone amuloo dara looy proof proof ci loo xam ne suñ la jàppee liy métti ci yow laa génn rasanga nguur kenn mënut a xeexam moom nguur bu tegee luwaayam képp ku jéggi sarta googu liy tooy ci yow laa jógee soo yow as a young man amuloo nothing to proof waaw amuloo dara pour proof pour war a nekk outside bu ten o'clock jotee toogal sa kër toogal sa néeg taal sa ataaya def déglu sa musique li nga war a def ci néeg bi bari na seetaan télé so amul benn amuloo benn reason to be outside kaf lu la ñu wax it start it starts at ten o'clock be in your house at ten o'clock jaamane woon fa woon te xam ne ñun xale yi ñun ñoo ñoo gën a saraan kuñ ci jàppa say parents nga gëteen rek waaw parce que yow ñu ëpp ci ñun xale yi mënuñoo génnee 5000 dollars yi boobu pour fay ko te sa période si 5000 dalasi bi ñoo fay noonu am nañ fu ko def dépense gaa ngi nii dëkk baa ngi saf bi bu ko dee saaku maalo yeeg diwlin yeeg yëpp ngeen a xaar ah toog leen seen kër yi te seen période si 500 5000 dalasi boobu ñu leen a war a fayal suñu leen jàppee ñu def ko ci dépense bi gungee ko ko fi gungee gungee ko 21 days mbokk yi dina ko déggandoor su ma mbokki ndongo yi man ñoom lay gën a waxal nañ toog suñ kër yi pare ñuy téye suñ xale yi saa yoo xale yi génn see génnee dem foy si ñëwee nañ jël lu mel ni oda sawel saabu xale yi di raxas seen loxo yi always loolu rek moo ñëw mun a loo si feebar bi ñëw diga nañ toog suñ kër ko curfew bii na is real koo xam ne téye nañ la si yaa ngi isil sa bopp problème di isil sa waajur yi problème comme ni ko suma mag ji waxee antumaan five thousand dalasi boobu noonu bari na am na ñoo xam ne ñu ne bariwut waaye bari na Frank Townsend bi am na lu mën a faj lu bëree bëri bëri si niig especially suñu xale yi nga xam ne ñu ngi waaj ñëw wala su school ibi loolu lañ leen war a dugale si seen school si muy 5000 dalasi ngala ngir yàlla ak yonente bi toog leen seen kër yi su ten jotee na ñëpp dugal seen kër yi yow mën a xam naa ne waa Banjul ñoom ñu ngi jëfee ndigal bu baax a baax a baax di bàyyi tere continuer leen si bàyyi tere yi ten di jëfee ndigal yi ndigal yi pare ñuy raxas suñ loxo yi every time ba pare ñuy sol max ba pare ñuy def social distance. antuma ñu yokk yi leneen ñi nga xam ne because ba tey doo mun a ostaan nit ñi am na ba tey ñoo xam ne ñu ngi gëm ne coronavirus amul man mënuma understand naka ngaa nekkee ci système bi nekk ci dëkk bi coronavirus li moo def ci dëkk bi di ko def ci àddina si di ko def fu nekk ba tey am na ñoo xam ne gëmuñ ko waaye nag right now nii xam nga bi foo da ngaa dégg rek dëkk yi ngaa dégg dee dee dee dee dee fi mu nekk nag déggaa ngi ni pour fii ku xam ne ñi nga xam ne ba muñ ne coronavirus am na dañ di fa dugal ñi nga xam ne ñoom lañ ñoom ñoo am coronavirus nañ fa dem fa def benn wan awa gis deet body si ni ñoo ñëwee ah ni mu baree ni ñëw ñëwee ci ci ci ci deet house boobu ah boo gëmut xam naa di nga dem xaaf yi parce que ci history of the Gambia mosu ñoo teg container fridge bunti dead house pour dugal fa ay dead bodies waaw so ñi nga xam ne gëmuñ ko maa ngi leen a wax ne ñi nga leen a wax ne nañ dem bunti dead house ñu seet li faa xapun xam naa ne lu bon bon bon bon ah seen xel buñ ko buñ demul full time gëm ko it nañ dem xaas bi waaw yi yéen a ko dégga yéen a ko dégga covid 19 is COVID-19 is real pandemic bii nii lu am la lu am la te buñ ko jëlee caaxaan nañ ko jëlé digal programme bi nak fan ngeen ko mëna amé moy Sahel Network TV ñu ngi ni fi bir Banjul muy kan seet ñoo di waxtaan ak suñ benn broda bu ñëw antu monti affaire Covid bi ak affaire pandemic bi naka la ko nit ñi jëlé ñu ngi leen ñaan na ngeen subscribe on Sahel Network TV si YouTube channel bi si Facebook bi and then send your comments si ah, si Facebook bi Antoumane bala ñoo dem last word lan nga am pour wax ñi nga xam ne ñooy programme bi right now fu nekk ni waaw li ma am pour wax len rek mooy coronavirus lu am la mu ngi ci adina si te egsi na ci dekk bi fim nekk kan ni nak febar bu amul garab la febar bo xamne bu la dalé kenn mënu ko fajj li nga am nak mu la mëna dimbalé rek moy nga moytu nañ tok suñ kër yi bo amé soxla boy dox dox ko bo ñëwee rasul boy dem salal masque rôle si dal yi ñu wax ne mom nga xamne mom lañu wara def nañ ko def te buñ ci bayyi ben suñ bëggee mu ci coronavirus bi musal suñ family musal suñ dëkka musal adina ci jëre ngeen jëf mbokk yi yéen ko antu man wax nako lan moo ñëw mën a lo ci fever bi ni moy lan ñu max di raxas suñ loxo comme ni ma leen ko woné won rek ba pare de social distance lo rek ñu mëna musal a muccalloo si feebar bi ni ñu ngi ni na fini muy ten Street biir Banjul fii pour waxtaan ak nit ñi affaire kafiw bi ak affaire pandémique bi naka la ko gars yi jëlee ñu ngi leen a ñaan subscribe leen on Sahel Network TV si YouTube channel bi and then ngeen yónnee seen comments yi comments yi dinañ important trop so toppal leen ñu fii nii si Sahel Network ñu dugal ak biir Banjul wal ne naka la Covid bi de demé naka la naka lañ jëlee feebar bi nga xamné moy moy coronavirus di pandémie bi ni nekk fii nii si biir dëkk bi fii nii naka la ko wa Banjul jëlé naka la ko Gambian ci jëlé in général fan ngeen ko mën a amee mooy Sahel Network TV subscribe di ngeen ko mëna am fofu non ci YouTube channel bi thank you very much waaw disease affecting the entire world. Gambia continues to register more positive cases. Do not wash your hands with stagnant water. wash your hands with running water. Avoid social gatherings, naming ceremonies, and weddings. Avoid eating from the same bowl. practice social distancing. To protect yourself and your family and to stop the spread of coronavirus, stay at home. performing eh, climate change uh, mandinka count on safono ikafa eh, ko alhawa falingo falin falingo because alhawa ka falin ne bari uh, a falinya a tata sanji jamal to men ya lonko a falinya nata sangar kana mantoro nati ntol hadamadiŋol kaŋ kuwo kuma wo sababu fo ntol hadamadiŋol faŋol la keña na na munafaŋolla ala ye so feŋol men na mbe munafaŋ na wolla ñaameŋ wole lan natambita so wolla natam wo wo naata mantoro laantol kan so niŋ ko mbe wo uh, eh, tala la wo to uh, wo mantoro tala la ñanta juuɓeeri ke la mbe munafaŋ na feŋol men na ñaadi le pour ka je ko a maŋ lan natambi pour eh, sama kamma kudol bi menul be sama wol fanan se munafango soto je so bari nin munafango lanna tambita dron mantoro le kana so wo mantoro wole ning climate change ɓe saabu so pour ka uh, eh, kumo sutiyandi commune sayin na baluña ñanta wole falinna ñantan dandagol marala ñaameŋ a sa tara man lanna na tambi ka, ka, ka dandagol tanka ka jeko ko ntol si la sama diniŋol fanan si muna Muhammad Duma fadan daga hoy ninyo yalo no mo kataranya to he summa Muhammad Duma fadan daga hoy ninyo yalo no mo kataranya to he summa Muhammad Duma fadan daga hoy yalo no mo kataranya to he yeah manginu yuke puku fonku jige bege, bege. gën faju te fu mu nekk comptable xëy ko comme gis nga si gars yi ne pour ñu jël ñu ci nekkoon ubbi bu baax a baax toog ak luñ gur gi ci daal tamit parce que man Covid bi souvent bala nga di ko taxaw sama nga waas mu ne ñu ne lii moom baax na sax bu ñuy taxaw ko parce que fii nit ñi sa bàyyi xel dañ di gën bopp parce que fii Banjul fii su ko mën a Gambie sax yow tuma jot ignorance ñi nga xam ne ko nekk ay ignorance yi nga xam ne soo wante rajo la ma gëmuma ko di nga xaar ba ba affaire si jot la soo te loolu nekkul science soo ni war a bàyyi suñu xel te ñun ñooy nguur gi su si nguur gi tudalee dara rek leen set li nga xamne pour suñu wér gu yaram ñun ñëpp ñu ànd ak ñu def ci gis Covid bi tey ñu taxawal tey gis na ñeñu bari bëri tey ñu ngay génne di ko ay flo di ñaan flo di riitewante xam nga si nga xam ne jaru ko nga mi ci ñu lay ne yow fagaru mo gën faju so ñu lay ne fu nekk nii jël ñu taxaw Covid bi pour bañ gadareen bi moo tax du ko sa bir kër ka tok li nga wara na naan nga ne ko ci yow ku nay from six o'clock ba euh, ten o'clock lo is enough su diggante euh, comme ñu dee tok bi bañ la na ataya diggante ten ba twelve lolu dara to boobu nga ko toog sa kër moo gën fi yow ñëw di la fa fekk so ay ci ko nañu bàyyi suñu xel si boor boobu bu baax te seet naka ñoo mun a saafara virus bi fi nekk nii pour mun koo génne suñu biir léegi nag moo ñu ko mun a génne mooy gis bu ko suñu gaaw pour ñu bàyyi suñu xel ñu jël ko ñu gis mesures yi gaa jël kenn di raxas suñu xel suñu loxo yi précaution si every time ba pare di eh, eh, avoid this eh, gathering public gathering fay always ñu kuloon suñu max yi di sol suñu max yi nii parce que lu gu bi taxaw tey tey na kuñ tee salandras bi war a trop gis naa tey moom tey te ifi si ko di tey ñu nga woo fii tey di génn ñi xam it is very good man dama support that idea bu baax even coffee bi tam ku ci tamit yóbbu la tamit addi yan sa xaage tamit gis ko parce que ne ko kay ñu si kanam respect loi so nit ñi mana yang mën betul betul yang li nga xam te loolu nga comme ko diga respect ñu respect loi nguur lu mu tëral rek nañ ko defee noonu dafa mel nga dem so loi bi toog leen seen kër yi wala toog kër yi loolu rek a ñu mën a sawee lool su ten tëggee daal na ñëpp dugg seen kër yi koo xam ne yaa ngi bëgg a jënd reer let's say eight o'clock bu ngaa jënd sa reer dugg sa néeg tëdda soo comme papa bu dafa am benn loo wax lu very important mooy ne man maa ngi koo jëma suñ ndaw yi dañ nga riite wante ak police lan nga am puy wax loolu si nga xam ne ñooy parents yi waajur yi lan nga am puy wax si loolu noonu na loolu lu raaj la loolu moo dëgg dëgg correct parce que man mii di wax ak mun naa ne ne suma kilifa bu wax la du ma ko du ma ko wax sens ne am suma doom ay tax ba tey suma waajur yi ne boy demee lii defal lii so man su ma woon a si kër bi tey sax dañ dee bàyyi xel seet na naa ngi génne si ndiko génn ma si kër bi suñu tax dañoo ne moom dafa dëggeet ba foofu moom su fekkee sama position tey yéen a bëri sax tey mayit ma ko so moo a ba foofu bëri sax dama ko na gars yi seet seen bu nangu su kenn ku la nekk bi wala tëj buntu kër bi bu kenn am accès pour génn fana moo gën waaye léegi gaa dikkaat te léegi yarin bi léegi dafa utee soo dañ jël seen séddi sax gën ko bëgg léegi seen doom so comme ni gars yi réewoon doom yi noonu la gars wala yoree sen sidi fu nekk nii pour gis mu dem fu mu dem si kanam parce que nga gis léegi xale am ay 16 17 mu lay si biti léegi ni la neex la gars yi def léegi wariwuñ sawul home training koy si sawul home training soo génnee si biti lu la nga def waaye man dama nekk moom comme koo xam man moom dama dem waxtaan xale yi dama dem mën ni si li nga nekk dama jël fekk si la ko waxtaan yow nanka nanka pour mu laa wane yéen ay bëri man tolloo woon naa ndé ma nekkoon naa ndaw démba fekk di naa lu bëri so yéen ay bëri man jaaruma si woon ak ni ma duggee duggee woon boofa yéen ay jaaruma tuma ko laal parce que man àndoon naa sama xarit yu bëri ñu daan tukk taxutuma tukk xam nga yëpp bandi yaa def ko lu bëri man taxutuma def ko ñu suñu bandi yaa mën ko digal boppam te fu nekk yéen yi bëri gis ne amutoon njëriñ moo tax tey ñu a mu na taxaw tey suñu waxee a soo di woon ndaw yi ne ëllëg ñu fay nekk mag na ngay seen xel li jaru di rite wante ay ami ak fara ak police yi jaru ko na ngay toog seen kër yi comme yi tuuti kon jees la kon te mu So Dorna, ligi tengah tu dekat 21 days again. But this is still for image is been tower still as far as payment we gain credit and wala still buka tahawat. Plus even ni ni nak ada sen hel this job punya mana pun nak eh politik lah. So di politik masa saya sumber second interview my my interview my my sahel oh naga kipa ko politik di pandemi bi hafu sidika bi yana bu yana liwa yana boko am sidan ko tangga. eh tu buka daftar linga ne politik bi yana le yala me linga buka wai ko politik yana linga yana boko am parce que man politicien laa te man man gis naa politicien ya, yu ya, bëri ñu koy war a yéene nag ñi ñu gëm ne feebar bi is réel feebar bi dafa am pare nga wax ni sama la amut nit lan lalu mbokkaam wala lalu keneen ko xam ne dafa ko jege soo style ñu bëri ba tey mënuñu ko gëm waaye damoon gars yi ne mënuloo force ni kii pour mu gëm ko parce que yàlla yónni na fi yónni na fi ay yónent yàlla yu bëri tawutal am na ñoo xam ne ba tey style sa gëm la yónent yàlla soo gëmut ci yónent lan moo xat te tey feebar bi te moo xagun soo di woon nañu ne style na gars yi rek as far majorité bi gëm na nako, ñu jël loolu rek ñu dem te fu mu nekk ne gëm naa ne fu mu nekk Gambia majorité bi yëpp gëm ne ne feebar bi Israël am na mu ci biir dëkk bi fu mu nekk ko suñu nga xam ne ñu ma gaamal ñu jël ko nañ ko jël di ko waxal rek raxasu bi always nañ raxas ma ma hôpital waa suma gars yi ne la man moom xam naa at bi dinaa raxasu ba dee te su dee yi ma ne gars ñaan yàlla mu am si at su dafa continuer si si plein heure bi tuuti tuuti bi rek dañoo continuer parce que ñu ne kii moom balaa nga mën wax sa sa sa wér gu yàlla jàmm nga wér bu baax a baax waaw parce que soo wérut moom ñeneen yi bëri la ko def so moo tax ñu war a bàyyi suñu xel pour feebar bi ñu obat ko bu baax a baax a baax waaye fii ni ñu leen diggante boppa da ngaa wax sometimes ñu ne bokkoo gisee loo xam ne mooy loolu man sometimes dama dama yosal mag sometimes ba bëgg a dee ba bëgg a fat waaye tamit moo ko laaj was ama publicité ko so publicité ko moom suñu nekkee moom sometimes yëpp rek da nga ko war a avoid so di wan gars yi ne na gars yi avoid discrété wante ak sécurité yooyu si yooyu noonu anasana bi na gars yi bàyyi seen xel bu baax a baax parce que guddi sometimes ma diina junni gis ngeen ñoo xam ne pour dem bi wax ñoom ne leen dugal seen kër pour yene yi bëri mañ ko ñu xapul seen diggante ak ak sécurité syndicat ga ñun tam ñoo fi nekkal suñu waaye am na fu moo toll dama leen di baax ak sécurité bi Pas gars yi dem nit tamit mooy loolu parce que tamit si loi bi ci si loi ci xawee loi sarta bi ñëpp a ko war a topp parce que ñëpp kon ma la ko waxee ñun ñëpp ñoo wax ko taxawal loi soo yeneen yu bëri nit ñi ne ko la appoint te baax suñu xel bu baax a baax si gis eh, pandémie bi dafa ëpp important bu baax a baax mbokk yi dina ko diga pandémie bi dafa important ñuy baax suñu bu baax kon nag dinañ ànd ak Pa Babou ñu dugal biir fii nii nga xam ne mooy saytam fii nii ñu waxtaan ak nit ñi comme niñ lañ ko waxee woon de si njëlbeen ba Sahel Network TV mooy YouTube channel bi and then Sahel Entertainment Studio bi mooy Facebook page bi seen leen seen comment si foofu noonu dafa important trop so ñu leen a ñaan rek ngeen seen seen comment si comme niñ ko waxee rek ñu ngi nii biir Banjul kuy seet naka la couvre-feu bi di demee biir Banjul fii nii wax naa leen ko démba ne la lu la réer Banjul fii nii rek fan nga ko mën a amee mooy Sahel Network TV si YouTube channel bi Sahel Entertainment Studio mooy Facebook page bi foofu ngeen mën a seen seen comments yi kon àndaleen ak ñun ñu dugg ak Pa bu fii ni nga xam ne mooy saytam ñu seet naka la agsi naka la things dee demee foofu noonu si affaire Covid bi ak affaire Covid 19 bi close guys mën na mën nañoo waxtaan ak ñi toog nii. gis nañ gis nañ gis nañ léegi ni gis ngeen borom bitig bii mu ngi nii di paak di dem gis nga ko because respect na time because of ten o'clock lañ waxoon waaye gis nañ ne moom mu ngi paak bagage sami dem puy ñëw puy tëj bitigam bi so lii mooy wone ne Banjul moom respect nañ loi bi loi bi mooy lan tëral nañ ko fiw bàyyi te nag kilak na ñëpp dugg seen kër yi dafa mel ni benn exemple mu ngi nii gis ngeen ko ne moom mu ngee paak kuy dem kuy en dem li ko gay wax loolu la moo def te nag kilak jotagut sa waaye mu ngee paak bagaasam yi kuy mun a dem kër yi wala moo am problème ak police officers yi wala bala moo am problème ak loi bi soo fa leen ak yéen society faabaabu fii nii mu seet naka la affaire si dee demee yaa ngi fànn lu baax nag yaa ngi tuula tur bi Baboucar Thiam Baboucar Thiam Baboucar am la gis sol max ba danga raxas all the time all the time naka nga gisee tey feebar bi moo ko feebar bi ni ma ko gisee mooy jaaxal na nit yi jaaxal na àdduna si gis bi so maa ngi ooj Gambian yëpp ñu xam ne COVID-19 is real it's not a joke people are saying different views nag you understand people are saying different kind of things they are saying different views but let everybody knows that this is real so we all have to be very careful and take the precautionary measures, you know, advice and, um, and all the uh, measures given by the government so that we can all be safe and, and, and, and, and, and healthy. Yeah, bro, let me know what. See, coffee being in xam ne booy ñu ngi ko jëlee caaxaan lan nga am pour wax si loolu. lu ma leen a wax rek mooy ñu bàyyi waxi caaxaan yooyu noonu te xam ne loolu waxi caaxaan rek la let us all put jokes aside and focus on this this is not real because suñ gisee lu feebar bi def jël na millions of lives so how can you call that a joke so lu ma advice nit yi nga xam ne ñu ngi wax ne feebar bi amul Gambia o lu fi politics la loolu waxi ngelaw la waxi caaxaan la nañ ko teg fële ñu ñu ñu ñu ñu fagaru ñu jël measures yi ñu avoid uh, the spread of this virus this is not a joke it's real léegi bro lan nga am advice parents yi nga xale yi exactly loolu tamit is is a very important point parents yi nga xam ne ñu ngi amee xale yu ndaw please nañ leen nañ leen try ñu téye xale yi si kër bi buñ leen alaa ñu because xale yi contrôle leen degg na you understand because pour nga force leen ñu put on this mask sometimes dafay nekk problème waaye suñ leen stay suñ leen make zone ñu provide leen all their needs let them stay at home loolu dina dimbale feebar bi bu bu bu mu tasaaroo soo maa ngi parents yi ngir yalla ay yonent bi nañ téye xalé ci bir kër gi ñu avoid xalé yi street ci yes lo la am pour wax gaay yi. jërëjëf bro tur bi waaw maa ngi kat. Babu kat. jërëjëf yes and I really appreciate um, um, this TV network you guys are doing a very fantastic job and keep up the momentum. thank you very we all proud of you. thank you very much exactly. thank you very much you are all welcome. ñena ko diga suma mag yi lu important nañ try ñuy fagaru fagaru mo gën faju comme ni ko gars yi day waxee nañ sol suñ maxi raxas loxo yi su te balaa ten di jot na ñëpp dugg seen kër yi comme niñ ko waxee rek nañ ko defee noonu ñu ngi leen a ñaan nag ngeen seen seen comments yi si facebook page bi facebook page bi mooy leen Sahel Entertainment Studio mooy facebook page bi Sahel Network TV mooy YouTube channel bi foofu ngeen mën a amee programme si nga xam ne mooy daw si télé bi mooy YouTube channel bi Sahel Network TV toppal leen ñu ñu ànd ak Faba bu Thiam fii nga xam ne mooy saytam si biir dafa mel ni da nga pare aspirité woon. ko jóg. Ah. loolu bi ko soo toppee gars yi dañ laa jox injuri du la si compensé kenn du la si def dara. so it's nga stay indoors rek nga obey time ten loo am yëpp am ko si day time dañ ko dee wax ne loo mënut a for time moom leere su guddee mun loo ko for so obey yoon dañ obey apply si dañ लगी था तुमने नहीं तुम उस जहाँ था दे मांगू ना फोर डेज था टू डेज बारे अभी उबे रहे यानी याला कोरोना के ना भी कोरोना वाला लिए ऐसे सुनने हैं याला कोरोना नहीं बिना डर इंशाल्लाह फिर भी वार फॉल फॉल गाइस थैंक यू वेरी मच ànd ak Miss Till Now ak Klaxon di ànd ak Pa Babou moom mi nga xam ne moom ñu ànd ak moom waxtaan ak nit naka lañ gisee Covid bii nii ak naka lañ gisee pandémie bii nii naka la moo dem Я не могу. So, naka ko xaar Ivoire Ablaye am nag. maa ngi fay sant yàlla. mel ni mbuuru nga uti woon de. non non juus moom. waaw soo woon fas yéene ma fekk bitiki tëj na soo mënee ma ñëw si waat. soo da nga dawale time bi nii. waaw war a respect time bi dugg balaa waxtu bi di jot. waaw loolu nga am wax ñi nga xam ne ñoo ñoo seetaan fii si Sahel Network TV about COVID 19 bii ak COVID bi nga xam ne moom lañ teral di bañ loolu nga am wax. si noonu ok uh, man lu ma lu ma wax sama mbokki gambien sax especially sama waa Banjul sama mbokki waa Banjul yi The Covid 19 is something real nit yi ñu ko a joke ñu ngi politique la waxi nii la waxi naa la maa ngi wax ne like soo leen foogee ne lii waxi politique la oo oh, nekk something real xëy na jafangu sa mbokk oo oh, gisangu la ko so many things like ñu bëri ñu ngi wax li nekkul lu am is not something real but trust me bro lii lu am la is something real nit ñu ngi dee it's killing people it is so much killing people curfew thing be. it is said by the president. Order Benafajiga from the president to the IGP, it goes down. Coffee by 10 o'clock, everyone should be indoors, get the order indoors by 10 o'clock. As a good citizen, I'm citizen, I respect Salua Lua. Soon 10 o'clock, everyone inside 10 o'clock, Nyab Sibir. Oh, Lola Ampuru Island. Yeah, legi ni legi ma laaj rek because diga nañ ne du ñaaka fii da nga ko dee gis léegi-léegi nga yoot gën a cafa booy di riite wante ak cay lan nga am puy wax si loolu noonu waaw ñooñu noonu ñuy def loolu noonu anyway gars yi dañ nekk di impliqué seen seen bopp ñoom dañ jàppee as a phone or as a joke rité wante boobu amu ba njëriñ yow yaa ngi rité wante at the end of the day yow lu nekk xëj na si because of like people like fii ñu bëri dañ foog ne hence bu ne démocratie ñoom even like this coffee thing su foo am forces su gaa génnee sax like ñoom am nañ dara raay xëj na pour sine yantuwaay rité wante non non it's not done yow sa biir dëkk respect loo sa loi bi nga génne si biti foreign land nga nekk foofu noonu like as a slave lu yaa wax nga def ko su ne mara télévision nga mar ko so sa biir dëkk ita wala su start here li teewoon def ak snitch you gaa def noonu amu bay njëriñ xaw mel ne ñoom respectuñ suñ service personnel si respectuñ leen bon noonu laa ko gisee anyway man dëgg dëgg noonu laa ko gisee respectuñ leen because soo ko jàppee ne like yow yaa nekkoon that service personnel on duties for five six seven hours just to make sure that everyone is safe inside by ten o'clock nga laat ne yow you are in his or her shoes nga gis kenn def ko fa naxari so likewise yow it has to be vice versa you put yourself in their shoes, it's not fair. They get there, but feel like so many people, you got to pass phone, taking their phones, you get your videos, hang on. Di buka gena ñu retail ak yoy I ay suma tey ak dama dangal ak do my ak respect nga anyway ñi ngi ko jabé ci han ñi respect len ak ci nga ay wusuba am lo explain yëf fay fen ay gis na gaay ni retail nak mo am to jëri Europe su ne this is that lu ne straight la straight su ne kof kof lu ya wax 2 minutes but fi su ko waxe ñun bañ especially in waa Banjul suñ ko is a problème fii su ngay even sax for example suñ ne like ten o'clock ñëpp dugal leen seen kër yi seen biir kër yi dañoo maye million o ten o'clock su jotee ñu bari dañ ko dugal aljana am na ñuy des gannaaw because dañ koo jàppee as a phone or as a joke duñ serious si alors we just not done. waaw waay waay waay dafa mel Banjul wax dëgg dimba génne nañ Banjul gis nañ ne respect nañ luwaa bi sama respect nañ ko bàyyi tene ko nopp ñëpp ñu bëri ñu ngi woon indoors nekkul ñëpp sori sori dogguma la sa de mhm. boo nekkul ñëpp mhm. xëy na man ak yow a concerned citizen kooku mi ngi indoors but still am na ñoo xam ne to be honest nekkul ne ma wax comme ñëpp soba das la so but am na ñoo xam ne still they are hanging around sorry to say maa ngi jógee like boori daan fi jëral di ñëw am na ñu ma romb maa ngi yoga ne temps bi jot na ñu ma ne ah booy xëy bul dégga bul dégga fa wa dajen Ducal Sakir nga nofal sa yaram nofal sa bopp nga dimbali gars yi seen liggéey mu easy but still we want to make it difficult for them at the end of the day ñooñu they are here for us we are here for them so they our own safety is in their hands still gars ñoo try to protect ñu still ñu gisuñu loolu man nag yoon nañ tëri by ten sorry to say every day I ngi gis lu mu bon ninety five or six seven nit si biir for what reason Still, loolu moo still even majority bi yëpp they carry the vote ñooñu ñu ngi indoors but still few people are still outside just to test o oh, ñoom dem bu ko gisal seen bopp o ñu xam xaw gis kon oh, ah, dëgg o oh, yaa ngi yaakaar ne suma gars yóbboo ma yaay lii la o suma pal lii na ma jël si no man is above the sa yaay su ko neexee mu ne am the highest rank in the Gambia su la gars yi jàppee what's supposed to be do sorry dañ la ko war a def ñu set a very good example si yow jërëjëf dina ko diga mbokk wax na yëpp ñun Gambian si ñu war a set exemple suñ ne ten nañ nekk soo ne by ten o'clock ñëpp mu fekk ñu suñu biir kër su boobaa jaamano ñooy kenn du si am problème ak nguur kenn du si am problème ak police di nga dimbale sa mbokk yi sa famille te di ngeen seefal xaalis kuñ si téye ñu ne ñaata five thousand dollars am na feneen fu mun a duga so ñu ngi leen a ñaan ngir yàlla ak yonente bi toog leen seen kër yi sol leen max raasen seen loxo yi loolu rek moo mën a muccalloo si feebar bii nii nga xam ne moo lëmbee àdduna bi yëpp fu nekk nii nag curfew bi moom mun naa ne start na ba te ten o'clock la gars yi waxoon so nit ñi ñu ngi leen a ñaan ngeen dugal seen kër yi di raxas seen loxo yi ba pare di aar xale yi comme ni ñu leen ko waxee rek Sahel Network TV mooy YouTube channel bi and then Sahel Entertainment Studio mooy Facebook page bi foofu ngeen mën a seen seen comments yi dina important trop ñu ne la ñaata ngeen subscribe si YouTube channel bi mooy Sahel Network TV Sahel Entertainment Studio mooy Facebook page bi bala ñoo dem rek last word lan nga am kuy wax ñi nga xam ne ñooy seetaan lii nii nga xam ne mooy coffee bi biir Banjul on Sahel Network TV lu ma am pour wax gars ne moo nekka like Sahel Entertainment am network ñu nga def lu baax anyway comme like seen loolu naa def nii dina nga dimbale ñu bari ñu xamul gaa xam ñu gisul gaa gis ñu déggut gaa dégg ah, li baax na si torop torop torop ñu ngi leen a wax bravo thank you so very much ala baraka jërëjëf Pabu Pa Babu last word bala ñoo dem sa sa huut bi la ñëwoon tey gis nañ ne pareil disturb nañ leen ba tey huut bi amut waxtaan bi amut naan ataaya bi amut lan nga am pour wax ñi nga xam ne ñooy seetaan. waaw loolu moo xam naa di si di rek parce que wane na bi pandémie bi moom mu nekk lu mu tëral tam di tamit te amuloo wér tamit amuloo njëriñ so fanaa di wér gu yaram nekk li nga da ngaa gisoon soo soo refee si loolu yéen a ngeen a seen booba man dama fi nekkal nit ñi si loo xam ne mu loolu lu wax wax si dama téye awuraan ma waat instant mi soo te dama wax ko loolu lay dox ba pare euh, Sahel euh, network entertainment bi di ko ne man ci suma suma suma suma télé la suma yëpp la ci suma papa euh, suma papa ko amee soo di ko gërëm bu baax a baax parce que every time am ñoo ma gis opportunité ma ñëw wax

pour ñu tegi tegi ñu gis eh, mbas nga ne moom la ñu teg fu ñu a toog fu nekk nii at bi yëpp fu nekk nii dara taxul dara dara dara dara ngi taxaw soo fu nekk di leen wax ne ngeen bàyyi seen xel bu ba a di leen di laxa raxasu di sol di joxe ne suñu defee loolu di leen mucc di leen ne jërë ngeen jëf ngeen ñu doon seetaan ñi di ngeen eh, di kontaan si yéen bu seen temps bi ngeen jox tamit di déglu di wane tamit eh, li fi waxee loo xam ne on est erreur la yi jégalu rek yoo xam mu dut yi da nga ko mën a rafetal rek bu àggee si ba waaye si loo xam ne yëpp lu ñu ko la nga xam ne yëpp yàlla la waaw di leen sant di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax di leen ne fii mooy Jollof ma nekk gaa seen kansilaa ñu ma ma nit ngeen ñu ne xamee ko Zeng su ngeen gis moom sant yàlla ñu moom suñu lees yi daf dee taal moom ñu ngi mel ni comme Dubaï so sant yàlla bu baax pour suñu tali yi tamit par macha allah fu nekk ñu ten patient rek mooy des boobu dama naan bi yëpp pare na mais day gërëm si nguur bi tam si bor boobu tamit di leen naa ah, jërë ngeen jëf Abdoulaye di wax kon ñu ko dégg mbokk yi wax naa leen ko si njëlbeen lu leen réer biir Banjul fan ngeen ko mën a amee mooy Sahel Network TV foofu ngeen ko mën a ameel si YouTube channel bi kon subscribe leen rek ngeen mën a am lii nga xam ne Covid bi nga xam ne wala pandémique bi ni moo demee biir Banjul fii rek ngeen ko mën a amee mooy Sahel Network TV mooy YouTube channel bi Facebook page bi is Sahel Sahel Entertainment Studio My Facebook page bi please ngi leen ñaan send your comments on that Papa, are okay? Muhammadu mafudando wai ninyo yalanu mukataranya tohe. heya su Muhammadu mafudando wai ninyo yalanu mukataranya to heya bita dawoda abi sambala ayi bara wolela doli bafola nyaku faidata hadamadi unelo mandia hadamadi ulo mandia he mojena lonte kilinti almambe tankala mojo uloma yote ya mfula moja olma modo kamusoke kumusole maulu, uwodo bijeto kunimbali ya lemu dofana mbije kadri ya lemu musota di wulula ayadi wonkon ke basito se munje dindulo totojela bulo ye mundada bulo wole kabondi mandinkole ya foyi ale tifali fali yalo wanyama muso ni mama kwe kana fo ibati nyala yala dunia kasara muso da manilaro muso te ti nyala na ti nyata ya te nya ala lo wanyama meri te nyuli nyunji gende nyi wara sigi holduba nyi wara dugu nyanda duna dami nyunji gende nyi wara sigi holduba nyi wara dugu nyanda duna dami so duma fudandugu Muhammad duma fa danda goy ni ñu yàlla nu mu ka tara ñato heya su Muhammad duma fa danda goy ni ñu yàlla nu mu ka tara duma fa danda goy ni ñu yàlla nu mu ah, yeah maa ngi nuyu képp ku fonk coronavirus is a serious and deadly disease affecting the entire world. Gambia continues to register more positive cases. Do not wash your hands with stagnant water. make sure you wash your hands with running water. Avoid social gatherings, naming ceremonies, and weddings. Avoid eating from the same bowl. practice social distancing. To protect yourself and your family and to stop the spread of coronavirus, stay at home. ñoo seetaan fii si Sahel Network TV man seen xarit seen doom Abdoulaye Souare ñu ngi still now ñu ngi Clarkson ñu ngi dox ñu ngi dem Clarkson Ken Street yooyu noonu ñu demee boori afda yi yooyu noonu boor yooyu la demee comme niñ leen ko waxee woon rek ñu ngi nii fii nii biir Banjul bu isi leen curfew bi nu moo demee ñu ngi a ñaan rek ngeen seen comments yi si on Sahel Network entertainment studio mooy facebook page bi saxel Sahel network tv mooy youtube channel bi foofu rek ngeen mën a amee programme seeni comme niñ leen ko waxee rek ñu ngi nii fii nii biir Banjul still naaw ñu ngi dem buy seet naka lañ nit ñi di dundee kofiw bi ak nit ñi naka lañ dundee feebar bi nga xam ne moo lëmbee àdduna bi disturb na wool bi yëpp fu nekk ni naka lañ ko jëlee maanaam daal biir Banjul wax naa leen ko soo leen bëggee xam luy xew bànjul fan ngeen ko mën a amee muy fan muy Sahel Network TV muy YouTube channel bi foofu ngeen mën a amee lépp li nga xam ne mooy xew biir Banjul fii nii ñu ngi nii nag di dem boori afda yi boor boobu nañ nekkee tey muy wol leen rek waa Banjul Banjul gis naa ne Banjul waa Banjul respect nañ lu waa respect nañ nguur gi liñ teral te nakuloog lañ wax ñëpp a ngi seen biir kër yi soo xoolee mbeeda bi yëpp a ngi emti ñëpp comme niñ leen ko waxee woon rek mbokk koy lan moo ñoo mun a muccalloo si feebar bii nii mooy lan foog ñu raxas suñ loxo yi ba pare ñuy sol suñ face mag si loolu rek a ñu mën a muccalloo si feebar bi nga xam ne mooy mooy covid 19 nit ñi di ko ooyee coronavirus so lolu rek mo ñoo mëna a ñuy raxas suñ loxoy every time di sol max ba paré ñuy bay public gathering ci ba paré sa yiñ togué nañ def social distance lolu rek a ñoo mëna sawé ñu ngi ni nak ñu ngi ni Johnson ni dofsin di dem di Wards bori bori afday, bori hegan, yi yooyu bor boor la ñoo démé fu nekk ni gis nañ ne mbéy yi fa ngi empty moto yi rek ngay gis ñu park dafa melni wa bañu respect nañ loi bi. respect nañ li nga xam ne moom la nguur gi teral respect nañ ko trop mooy tenakoloog lañ wax ñëpp nekk si seen biir kër yi li ma leen wax ni programme bi fa ngeen ko mën a amee mooy Sahel Network TV Sahel Entertainment Studio mooy Facebook page bi foofu ngeen mën a seen seen comments yi leen a ñaar rek ngeen subscribe si YouTube channel bi mooy Sahel Network TV mooy YouTube channel name bi Sahel Entertainment Studio mooy Facebook page bi ngeen seen fa seen comments dina important trop so ñu ngi leen a wane si naa ñu ngi biir Banjul di seet Covid bi naka la moo demee biir Banjul fii nii nga xam ne ñun ñëpp léere wuñ ne nguur wax na ne foog ñu am foog ñu foog ñu respect li loi bi wax loi bi lu wax rek mooy lan foog ñu ne ten o'clock la loi bi wax na ñëpp dugg seen kër yi na ñëpp toog seen kër yi waaw ñu ngi nii nag fii nii mooy xiigaan xiigaan lañ nekka nii xiigaan moom maanaam daal dafa empty moto yi rek ngay gis moto yi rek das mel ni ñëpp a ngi indoors après also tamit biir Banjul mu ngi xaw a taw waaw mu ngi taw nag waaye nekku taw boo xam ne taw bu rëy la jos mu ngi jos dafa wis wisal nii rek waaw soo ñu ngi nii nag xiigaan di seet things naka lam fa demee fii nii nga xam ne moom mooy xiigaan wala biir Abda in general naka la ko fiw bi naka la ko nit ñi jëlee dafa mel ni waa Banjul ñoom jëlee nañ ko bi sérieux def nañ li nga xam ne moom la luwaa bi santaane muy lan ñu toog seen kër yi loolu la leen luwaa bi wax te nag ku nag bu kenn génna soo dafa mel ni waa Banjul ñoom respect nañ affaire si tarap tarap tarap tarap kon nu ma leen ko waxee rek pege suma hamon duma fodan dugu wai ninjo yalo no mu katara nyato heya suma hamon duma fodan dugu wai ninjo yalo no mu katara nyato heya suma hamon duma fodan dugu wai ninjo yalo no mu katara nyato heya suma hamon duma fodan dugu wai ninjo yalo no mu katara nyato heya bita dawoda abisambala ayi mu fuyi ke bara wolela doli bafolanya la mu yow loo ma di amiin amiin amiin su ma xamoon du ma fa dandugu way ni ñu yàlla noo mu ka tara ñato xeya su ma ko musole maulu, wolo wodo bi jeto ko nimbali yalemu do fanam di jet kadri yalemu muso tadi wulula ayadi wonkon ke basito se munje dindulo to toje la bulo ye mundada bulo wole kabondi mandinkole yafo itelle yafo ni amiro muso kadi wulu ayafai ye tele fai woma ta faide bisalo wonyama dunia fele ni amira alabe mbokk ñu ngi jégalu rek si dog-dog-dog boobu noonu nga xam ne comme niñ leen ko waxee woon rek dañ doon traité pour jëm a fixe suñ caméra bi. si dog-dog boobu noonu ñu ngi ni waat nii nga xam ne mooy Higaan foofu lañ nekk ni di woot puy dem boori Pagi Afdaay boori Port Authority pour seet area boobu noonu naka la mel dafa mel ni waa Banjul ñoom jëlee nañ ko fiw bi sérieux lañ sama dem na am na koo xam ne daf ñu séen nag di daw mu ngi sol genso bu white moom daf ñu foog policier kon dafa mel ni waa Banjul jëlee nañ ko fiw bi seriously te caaxaane wuñ ko so ñu ngi leen a gërëm si loolu noonu ñu ngi leen a ñaan na ñëpp toog seen kër yi ñi leen a ñaan tam ñuy raxas seen loxo yi always ñuy raxas suñ loxo yi ñu sol suñ face mask yi ba pare ñuy moytu public gatherings si saa yu ñu taxawee nañ ne nañ make sure nañu def social distance loolu moo ñu mën a dimbale si feebar bii nii nga xam ne naka lañ ko ooyee mu coronavirus nit ñi di ñeneen ñi di ko wax Covid 19. so please mbokk yi comme ni ma leen rek ñu ngi nii xéegaan ba léegi gisaguñ benn nit wax dëgg yàlla dafa mel ni waa Banjul ñoom ubbee nañ maanaam nangu nañ li nga xam ne moom la nguur teral ñu ko ubbee bu baax a baax a baax a baax. so ñu ngi leen ñaan ngir yàlla ak yonente bi ñu ngeen toog seen kër yi ba pare di raxas seen loxo yi pare soo xale yi génnee saa yu nekk rek nañ meeg soone ñuy raxas seen loxo yi bu baax a baax a baax a baax a baax loolu dina leen dimbale nañu aar ñun ñëpp dina leen aar aaraale xale yi aaraale waajur yi nañ ko defee comme niñ ko waxee rek ñun ñëpp ñu mun a mucc comme mbokk yi comme niñ leen ko waxee rek programme yi foog ngeen ko mën a amee muy Sahel Network TV mooy YouTube channel bi foog ngeen subscribe ngeen mën a am lii nii nga xam ne mooy xew biir Banjul mooy cofe bi nga xam ne moom la nguur gi teral suñ Facebook page bi mooy lan mooy Sahel Network Sahel Entertainment Studio mooy Facebook page bi foofu ngeen mën a seen seen comments yi na important trop so ñu ngi leen a jaajëfal rek comme ni ñu leen ko waxee ñu ngi nii Hegan an Hegan ak angle seen boor boobu noonu lañ nekkee si Johnson bi muy boori paagi Afdaay so ñu ngi jéem a try puy jéem a koof puy dem nga xam ne mooy boori liimaan yooyu noonu si boori port bi te ñu ko daan ooyee ah, can bi muy Afdaay foofu noonu muy boori liimaan boori yooyu noonu lañ nekkee du ñàkk tamit yéen a koo gis gis ngeen ko ñu ngi nii nag boori limaan wax naa leen ko comme ni ma leen ko waxee rek mboolem koo xam ne nama nga Banjul nga nekk si diaspora bi nga nama Banjul lan nga mun a def pour mun a gisaat Banjul mooy fan muy Sahel Network TV si YouTube channel bi always foofu rek nga mun a amee li nga xam ne muy xew Banjul bi ñu ngi ñaan rek ngeen subscribe si YouTube channel bi muy Sahel Network TV mooy YouTube channel bi Sahel Entertainment Studio mooy Facebook page bi foofu ngeen mën a seen seen comments si nañu dimbale trop comme mbokk comme ni ngeen ñu nii Limoon foofu noonu lañ nekka Limoon boor yi Banjul cinéma comme niñ ko daan waxee rek boor boobu nañ nekkee foofu noonu fii nga xam ne mooy Limoon gisuñ fi benn nit dafa mel ni streets are empty only the trucks trucks yi rek lañ fi gis trucks yi rek lañ fi gis ñëpp dafa mel ni waa Banjul respect nañ loi bi nga xam ne moom la nguur gi tiral muy lan ñu ne ten o'clock ñoo gis kenn si mbedda bi dafa mel ni waa Banjul ñoom respect nañ nañ loi bi bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ñu ngi na jaajëfal si loolu yéen waa Banjul definitely gis nañ ne respect ngeen loi bi trop trop leen na ñaan rek ngeen gën a continuer si loolu noonu dinañu dimbale trop comme ni leen ko waxee rek ñu ngi nii biir Limon di dem nag buy seet nga xam ne mooy curfew bi nga xam ne moom lañ tëral biir Banjul fii dafa mel ni waa Banjul respect nañ loi bi nga xam ne moom la nguur gi tëral comme ni leen ko waxee rek seen lañ seen comments yi si Facebook page bi muy fan mooy Sahel Network Studio bi mooy Facebook page bi foofu ngeen mën a seen seen comments yi yooyu ngeen jëf ñu leen a jaajëfal rek gis nañ seen comments yi ku si mel ni ndey ndey buujang ñu ngi laa jaajëfal rek jërëjëf ñu leen a ñaar ngeen gën a seen seen comments yi gis nañ ah, ku mel ni alpha alpha Robinson Diallo jërëjëf sa comments yi rafet na tool ñu ngi ko jaaj ñu ngi laa jaajëfal ñu leen a ñaar ngeen subscribe si YouTube channel bi foofu ngeen mën a amee mu lan Sahel Network TV mooy YouTube channel bi Sahel Entertainment Studio mooy Facebook page bi foofu ngeen mën a seen seen commencé comme ni ñu leen ko waxee ne still now ñu ngi liimaan ñu ngi liimaan si boori boori ndox bi boor boobu lañ nekkee still now gisaguñ benn police boo xam ne mu ngi riite wante ak xale yi wax dëgg neexee la waa Banjul respect nañ loi respect nañ la la nguur gi tiral definitely ñu ngi ko defee li nga xam ne moom la loi bi wax dina jaajëfal rek si loolu noonu definitely kontaan nañ trop trop ñu ngi leen ñaan rek ngeen subscribe si YouTube channel bi foofu ngeen mën a all programmes nga xam mo moo Sahel Network TV Facebook page bi muy Sahel Entertainment Studio mooy Facebook page bi foofu ngeen mën a seen seen still now ñu ngi limoon the sides of uh, bari immigration department bor boobu noonu lañ nekkee foofu noonu lañ nekkee nii foofu noonu lañ nekka ñu ngi leen a jaajëfal si loolu comme nañ leen ko waxee rek ñu ngi biir Banjul di seet curfew bi naka la fa demee so ñu ngi nii bori immigration department so bor boobu lañ nekkee nii lii man definitely waa Banjul respect nañ loi gisa because gisaguñ benn push and pull police officers yi ak ñi nga xam ne ñooy definitely kontaan nañ still now ñu ngi limoon ñu delluwaat rek pour waxat leen ne ñu ngi limoon fii limoon moom macha allah ni mu mel nii léegi tane woon na jamono bi nga xam ne jamono bi ma dem school nga xam ne fii kuy mo fi sax problème la woon ñu ngi nii limoon boori Roman school ñu xamee woon ko Roman school fu nga xamee ne macha allah léegi tali gi moom macha allah baax na lool ute na ak jamono bi nga xam ne ñu ngi daan dox di dem school te boo noonu suñ doxee tuuti rek suñ daala yi ñu fakastalu suñ daala yi dog wala suñ daala yi punde nekka ni nu mel nii léegi macha allah tali yi moom baax na trop so léegi ñu ngi nii still now liimaan di woor fii dem Johnson yi liimaan ak xiigaan ak Pictin liimaan ak Pictin boor yooyu noonu lañ lañoo demele ni ba léegi ñu ngi nii liimaan still now gisaguñ benn nga xam ne pusan pool ak police wala lay comme rité wonte li nga xamné mom la nit ñi di wax ak boy si ak police yi wax dëgg ne yàlla gisaguñ loolu noonu and then ñu ngay ñaan parents yi ñu waxtaan ak seen doomi ñu waxtaan ak seen rakay ñu waxtaan ak seen jarbaat di nga né yalla lu wa bi li mu wax mooy ne ten o'clock bi ñu gis kenn ci mbéra bi kuñ gis ci mbéra bi dinañ la fine 5000 dollars so ñu leena ñaan rek ñu waxtaan ak seen doom yi waxtaan seen raka yi waxtaan ak seen jarbaat yi so ñu ngi nii liimaan ak Pictin boor boobu nañu nekkee still now dem di wars ñu ngi liimaan ak Pictin boor bi ñu ngi nii boori school si ganaaw Pajuf school boor boobu lañ nekkee foofu noonu lañ nekkee nii di wars dem boori Albion primary school गौरबोगे अभी और दिगर नहीं हारा जिस एनी पोषण पूर्व हमने एनी पुलिस और एनी बॉय भी का हमने उनके ट्रैफिक गर्ल फ्लो अभी इन्होंने कम नहीं मैंने को वह रख सहेल नेटवर्क टीवी मोई यूट्यूब चैनल भी सहेल एंटरटेनमेंट स्टूडियो मोई फेसबुक पेज भी फोफिंगल मुना सने सेंड मांगने ना जाए जफा लेक्स maa ngi jaajëfal ki nga xam ne mooy sang moom tamit jërëjëf si sa commune si maa ngi gërëm suma sista bu baax muy Mariama Soare mu ngi folo programme ñu leen ñaan rek ngeen folo programme bi ki nga xam ne mooy YouTube channel bi am Sahel Network TV foofu ngeen mën a amee programme si yëpp yëpp yëpp yëpp still now ñu ngi nii Johnson bi Liman and then Albion Primary School boor boobu noonu la nekkee di woot si naan dem boori Makati Square boori Makati Square boori boobu noonu la ñoo demee boori St Mary's kenn réeré wut ñu ne ñu si bari xam naa ne ñu si bari ñi nga xam ne ñoo nekk si diaspora bi ñi nga xam ne jaar nañ St Mary's School ñi nga xam ne jaar nañ Albion Primary School xam naa ne comme ni ma leen ko waxee rek soo leen namee Banjul fan ngeen ko mën a amee mooy Sahel Network TV mooy YouTube channel bi and then Facebook page bi mooy Sahel network studio mooy ok comme niñ leen ko waxee rek suñu programme si fan ngeen ko mën a amee mooy YouTube channel bi leen bi mooy Sahel Network TV mooy YouTube channel bi Facebook page bi mooy Sahel Entertainment Studio mooy Facebook page bi still now ñu ngi leen a ñaan rek ngeen subscribe si YouTube channel bi and then ngeen follow si Facebook page bi muy Sahel Network Entertainment studio mooy Facebook page bi right now ni ñu ngi ni boori Makati Square di woot fuy dem si boori Albert Market bi si roundabout bi boor boobu lañ nekkee still now ñu ngi ni boori si Albert Market bi boori Makati Square ñu ngi koo fuy dem boori Central Bank boori Central Bank di woos fuy dem boori police station boori boobu la ñoo fuy dem comme niñ ngeen ko waxee rek comme niñ leen ko rek fii ngeen mën a amee programme si nga xam ne mooy xew biir Banjul biir Banjul su ma nee soo leen namee Banjul ñi nga xam ne ñoo nekk si diaspora bi wala ngeen nga nekk biir Banjul nga nama yeneen koñi ñu ngi laa ñaan rek nga subscribe यूट्यूब चैनल भी मुझे सहेल नेटवर्क टीवी वो यूट्यूब चैनल नेम भी से फेसबुक पेज भी मुझे सहेल एंटरटेनमेंट स्टूडियो मेरे फेसबुक पेज भी कमिंग नी नक बोरे लीमन बोरे सेंट्रल बैंक कमिंग यहाँ को किस मुझे किस आई हाउस ही कम स्टोर सी कमिंग लेने यहाँ रख गिरियाला अगेन इंटर भी स्टोर सी वर्ड नहीं चाहिए ये मत हाउ बिकॉज़ कम लोगों गए रहे देखो आई मुझे गिनाल दिन चुका है dëkkuwaay moo ñu gënal dencukaay comme ni ko gars di waxee rek ñu ngi nii nag te lii man si boor yi central bank bi central boor boobu noonu lañ nekkee ñu ngi nii boori central boori ministry of education department bi boor boobu la nekkee woon ñu ngi leen a jaajëfal rek comme ni nekk son leen seen communes suma broda maa ngi laa jaajëfal rek Ibou Johnson ma la ko wax rek Ibou bro Ibou Johnson ñu ngi laa jaajëfal rek please subscribe on YouTube channel bi mooy Sahel Network TV mooy YouTube channel bi Facebook page bi mooy Sahel Entertainment studio mooy Facebook page bi foofu ngeen mën a seen seen comments yi jërëjëf Ibou Johnson ñu ngi laa jëfal rek ñu la ñaan rek fii nga wax ko sa friends yi ñu subscribe on si YouTube channel bi on Facebook Facebook page bi mooy Sahel Network Studio mooy Facebook page bi Sahel TV Sahel Network TV mooy YouTube channel bi foofu nag ngeen ko mën a amee programme si yëpp comme niñ leen ko waxee rek ñu ngi nii fii nii di woot boori Central Bank ah, foofu noonu lañ nekkee noonu central bank bi moo fii dem boori police station bokkul boo moom lañ nekk comme ni rek store si moom sonal na waa Banjul comme ni ko waxee rek ñu a ñaan ñi nga xam ne ñooy seetaan store si naka lañ mën a def mën a éradiquer ñi nga xam ne mooy store si warehouse yi ñi nga xam ne ñoo nekk si biir dëkk yi comme niñ ko waxee rek dëkkukaay moo ñu gënal dëjjukaay right now nii ñu ngi nii bokkul lañ nekka bokkul di Ward's of Central Bank di boori Trust Bank foofu noonu lañ nekkee ñu dem di ah, si boori police station bi bokkul boor boobu noonu lañ nekkee di leen jaajëfal rek kon ñun comme ñu ngeen ko waxee rek YouTube channel leen bi mooy Sahel Network TV foofu ngeen mën a amee programme si yëpp. si Facebook page name bi mooy Sahel Entertainment Studio mooy Facebook page bi ñu ngi leen a ñaan rek ngeen seen seen comments yi still now ñu ngi biir Banjul comme ni ñu leen ko waxee rek ñu ngi seet li nga xam ne mooy curfew bi biir Banjul naka la fi dee demee naka la dee naka la ko nit ñi jëlee dafa mel ni waa Banjul jëlee nañ ko seriously waa Banjul respect nañ lu waa كل واحد ترى له وابان بنم كو دفين goskislo ken ko xamne fi ñu ngi rité wonté ak police ñu ngi ni right now bokul bokul ak bokul johnson bi fofu lañ nekk ak boori pictin ñu ngi wars bi dem di wars ak boori police station building bi fofu noonu lañ nekkee but still now you don't see gisaguñ kenn benn push and pull uh, civilian up or police officer So sinabi ko siguro police station before nagulolin niya ke जिसने मेरा पुलिस मान दी हम मेरा भाई मेरा बाप फ्री अब दफा दहन टू वाओ दुनिया का दफा दहन टू and stuff like that. Ni ni bori bori police station kami ni ko hare bakul len ne ka fola fire service bi ne ka and then uh, forest the chartered bank building bi ne ke On my right hand side Fugmoy Fire Service building bi on my left hand foofu la police station bi nekkee and then licensing department mu ngi boor boobu noonu muy fan bokkul boor boobu lañ nekkee mboolem koo xam ne dem nga moo xam ne dal primary school rek war ngaa mën a xam fan mooy bokkul fan mooy bokkul right now ñu ngi ni bokkul ak bokkul Johnson ak Picton boor boobu lañ nekkee Kau ni makan ko waxee koo xam ne dem nga moo xam ne primary school war mën a xam fan mooy bokkul ñoom jaajëfal comme ni ngeen ko waxee rek fan ngeen mën a amee programme si mooy lan Sahel Network TV mooy YouTube channel bi Sahel Entertainment Studio mooy Facebook page bi foofu ngeen mën a sànnee seen comments yi so still now ñu ngi bokkul ñu a wax ne rek still navigate ngi Ini ak yéen si Afiri Kofiwi Ninyo yalo nu mu ka tara ñato xeer su ma xamoon du ma fu nu mu ka tara ñato xeer su ma xamoon du ma fu nu mu ka tara ñato xeer yeah maa ngi nuyu képp ku fonk jigéen Coronavirus is a serious and deadly disease affecting the entire world. Gambia continues to register more positive cases. Do not wash your hands with stagnant water. sure you wash your hands with running water. Avoid social gatherings, naming ceremonies, and weddings. Avoid eating from the same bowl. practice social distancing. To protect yourself and your family and to stop the spread of coronavirus, stay at home. virus is a serious and deadly disease affecting the entire world. Gambia continues to register more positive cases. Do not wash your hands with stagnant water. wash your hands with running water. Avoid social gatherings, naming ceremonies, and weddings. Avoid eating from the same bowl. practice social distancing. To protect yourself and your family and to stop the spread of coronavirus, stay at home. moo koy comme ni leen ko waxee woon rek mbokk yi comme ni ñu koy waxoon rek ñu ngay jégalu rek si dog-dog boobu noonu nga xam ne réew mi de comme ni leen ko waxee woon rek mu ngi doon xawaat mu doon taw loolu moo waral dog-dog boobu noonu rek waaye ñuy jigalu si loolu noonu bu baax a baax a baax comme ni ñu ko waxee ñu ngi ni jógee nañ boor yi ah, bokkul nga woos di dugg si ni boor yi nga xam ne mooy boor yi एरिया बहुत नन्हे के वो हमने बोरी जीआरए वो एरिया बहुत जो वॉर्स भी देश बोरी टेक्स भी बोरी टर्मिनल बोर बहुत नन्हे के मिनी बोर बहुत नन्हे तो इधर बोरी टेक्स बोरी पोर्ट्स वो हमने फुला फीरी भी दे कस्टे बोर बहुत नन्हे के स्टील ना कम नियम का वो हैरेक मिनी बिर बांजुल डिसेट कॉफी भी � Colin Name Banjul seetaan leen Sahel Network TV mooy YouTube channel bi Facebook name bi is Sahel Entertainment Studio mooy Facebook page bi foofu ngeen mën a seenee seen comments ñu ngi leen a ñaan rek ngeen subscribe si YouTube channel bi mooy Sahel Network TV mooy YouTube channel name bi Sahel Entertainment Studio mooy Facebook page bi ngeen seen fa seen comment yi dina important trop. comme niñ leen ko waxee rek ñu ngi ni biir bandul fii nii si bon boor bi nga xam ne boobu li lañ nekkee mooy si tefes bi boor boobu noonu lañ nekkee kuy woos ñu ngi di dem di woos si dem boor yi boor yi terminal fi nga xam ne foofu la ferry bi de coste muy boori ports area boobu noonu lañ nekkee di woos fi dem boori Apollo Hotel ko as Apollo Hotel boor boobu noonu area boobu noonu la nekkee mooy naan dal ci boori terminal bi fofu non lañ nekké comme niñ leen ko waxé ci gatal gis nañ ne sti now gisaguñ ben nga xamné comme niko ko gars yi police yi ñu ngi riiti wante ak nit ñi wax dëgg yalla fa melni wa Banjul respect nañ loi respect nañ nga xamné mom la réew mi président bi tëral respect nañ ko trop gis gisaguñ benn puusan puul li nga xam ne mooy riit yi nit ñi fii nii wax dëgg ñu mooy Sahel Network TV mooy YouTube channel moom si Facebook page mooy Sahel Entertainment studio mooy Facebook page bi foofu ngeen mën a seen seen comments yi still now ñu ngi nii Banjul fan boor lañ mu ngi fan ñu si boori tefes bi di woot fi dem boori port area boobu lañ nekkee fi nga xam ne moom la féeri bi dee costé bor boobu noonu lañ nekkee comme niñ leen ko waxee rek steen ndaxaw yéen a gis ne Banjul stores yi mu ngi doon di stop ñaan rek ñuy ñaan autorité si tamit ñu jëm see taxaw biir Banjul ñun Banjul dëkkukaay moo ñu gënal dencukaay foog naa ne boor bii la store si war a nekkee waaye suñ jëlee store si def ko si biir dëkk bi kon duñ am kon comme niñ ko waxee rek dëkkuwaay moo ñu gënal dencukaay mu ngi nii nag si boori terminal bi terminal bi moom dafa mel ni lu empty mu ngi ko kuy di woos kuy dem boori bokkul bokkul and then Bland area boobu noonu lañ nekkee nekee gës kon nu ma leen ko waxee rek boo leen namee Banjul seetaan leen Sahel Network TV muy si YouTube channel bi fan ngeen mën a seen seen comments yi muy si Facebook page bi muy fan Sahel Entertainment Studio mooy Facebook page bi foofu ngeen mën a seen seen comments yi leen jaajëfal rek si seen comments yi seen leen seen comments yi ba pare ngeen bu leen fàtte ngeen subscribe ci YouTube channel bi muy Sahel Network TV mooy YouTube channel bi ñu ngi waat ni boori bokkul lañ nekkee bokkul foofu noonu lañ nekkee ni dis jéem a seet situation bi comme niñ ko waxee rek kofiw bi biir Banjul naka la moo demee di ñàkk tamit dinañ dugg si koñu koñaani sew yi muy boori Fijaral boori Piñaar yi area boobu noonu dinañ fa dugg ñu ngi nii nag still now ñu ngi bokkul lañ nekk ni bokkul foofu noonu lañ nekk ni wax dëggal ne yàlla waa Banjul jëfe nañ digal te bàyyi nañ tere mooy lan bu kenn génn ak ten o'clock loolu mooy tere yi jëfe nañ ndigal ndigal yi mooy lan ten o'clock bëggu ñoo gis kenn si mbedd bi ñu jaay jëfal rek waa Banjul si loolu comme niñ leen ko waxee rek kenn déedéewul mbir na mooy feebar bii nii nga xam ne moo sonal àdduna bi sonal sonal wool bi ban feebar muy coronavirus ñu ko ooyee covid 19 nañ leen ko waxee ñi ngi ni still now ñi ngi bokul bokul lañ nekk muy bokul ak kenn wu ngir ne Banjul wax diggan na yalla ñom respect nañ loi respect nañ li nga xam mom moom la loi bi tëral te nekk la bu ñu gis kenn ñom ñëpp dugga seen kër yi seen la ñu ngi bokul kenn réewul ne mboolem koo xam ne demee nga school boori Mohammedan school muy bokkul fu mu ne nekk gannaaw roman yaa ngi ko gis gis ngeen puus-puus yi taabul yi ñuy ñaan autorité yi tamit ñu jël matuwaay yu puus-puus yi nii ñuy setal dëkk bi loolu ñu ngi koy ñaan autorité yi nga xam ne ñoo nekk si kaw bi ñu jëm ñoo jàppale si li nga xam ne mooy kuy setal Banjul ak puus-puus yi nii ñu amal leen fan la ñu a pàq so ñu ngi leen ñaan si loolu noonu ñu leen jaajëfal rek wax na leen ko comme ma ne ko waxee rek soo leen bëggee xam liy xew Banjul foog ngeen seetaan Sahel Network TV ñu ngi nii nag muy boori Mohammedan school foofu lañ nekkee nii kenn réeréwul ñun dañu ñëpp gis xam nañ Mohammedan school nga xam ne bokk na si school si nga xam ne moo gën a yàgg si biir Banjul bokk na si school si nga xam ne moo gën a yàgg biir Banjul ñu bari jaar nañ fii nii tamit ñuy ñaan tamit autorité si may ñaan waa city council bi ñu ñëw di gestu li nga xam ne mooy tilim bi nga xam ne moo nekkee si booli tefes bi ñu ngi leen ko wax nag na nga ñu dégloo xel te ba ñëw dégloo xol du wax ne nekkul ne dañoo criticize ñu ñëpp dañ bëgg fuy Banjul jëm kanam loolu moo ñu tax a jóg so suñu waxee ne pour ñu dëkk ñu setal dëkk bi it doesn't mean ne dañ leen a criticize o dañ leen a sànni xeer sànni wuñ leen xeer ñun ñëpp dañ bëgg lu baax fuy Banjul la nga ñaan ngeen setal Banjul te ñun lañ am Banjul ñu mel fu nekk nii wax dëgg am yàlla council bi war nañ see mën a jóg war nañ see mën a taxaw setal biir Banjul setal tefes bi tefes bi ñu mel nii fu nekk nii especially boori bokkul boori Hégane wax dëggal ne yàlla ak puus-puus yi ak troog si ni ñoo taxawee double parking si war nañ si mën a wax ñuy ñaan autorité si yëpp ñu jéem a jël seen matuwaay pour li nga xam ne mooy parking place at least war nañ ko mën a am fi ni biir Banjul nim mel nii fii biir si Picton fii nii wax dëggal ne yàlla parking bi fi nii moom rafetul loolu ñu ko lu not ñuy ñaan rek autorité si especially city council bi ñu jëm see jël steps at least ñu jëm a seet naka la ñoo mun a dimbalee nit ñi wala naka la ñoo mun a paagee moto yi bu baax a baax a baax a baax ñu ñaan tamit ñi nga xam ne ñoo amee wàllum cleaning service bi ñuy try ñu clean dëkk bi wax dëgg ne boo xoolee tey fii nii fi nga xam ne fi mu nekk nii muy fan Johnson yi Picton ni mu mel marché ni mel tilim bi moom jéggi na dayo kon ni ngeen ko waxee rek ñu ngi ñu dégloo xel te ba ñoo dégloo xol ñëwoñ fii kuy criticiser kan day ñëw rek kuy waxtaan ak ñun kuy jëm a seet lan mooy jëmal Banjul kanam kuy rafetal suñ Banjul bi ñun kon niñ ko de waxee rek ñun Banjul lañ am Banjul lañ xam su ñuy ñaan rek autorité yi ñu jël see taxaw especially city council ñu jéem jël ay matuwaay matuwaay mu sëkk dimbale ñu si wàllu mbalit mbalit bi naka lañ ko mën a tuuree wala naka mën a city bi mu nekk one of the best city in Africa loolu naka lañ ko mën a def foog ñun ñëpp ñu bokka bokka bokka loxo jàppale ñi nga xam ne tamit ñooy city council bi mooy ñaan ñi nga xam ne ñoo nekk si biir kër yi ñoom tamit ñuy try di bale seen bunti kër yi bale seen environnement si dina dimbalee trop di city council bi tamit may ñaan tamit ñi nga xam ne waajur yi suñ amee suñ mbalit nañ koy yóbbu fi nga xam ne foofu lañ dee tuuree mbalit ñu tuure ko foofu raara daal ñu ko tuur si biir pax yi muy fata si yéej bi soo ñu ngi leen a ñaan rek ngir yàlla ak yonent bi def loolu noonu comme niñ leen ko waxee rek ñu ngi ni biir Banjul ñini bori dofsin towards them body bori Figueral body body can Street area boobu noonu la ñëw wars fi demal comme ni mu leen ko waxee rek Sahel Network TV mooy YouTube moom channel bi Sahel Entertainment Studio mooy Facebook page bi foofu ngeen mën a seenee seen comments yi ngeen jaajëfal nag ñëpp comme ni ñu leen ko waxee rek ñu ngi nii fii biir Banjul pour jëm a seet nga xam ne naka la kafiw bi dee demee biir Banjul wax dëgg yàlla waa Banjul respect nañ loi waa Banjul respect nañ li nga xam ne moom la nguur bi tëral muy lan te nekkul ak bëgg ñoo gis kenn. day leen fàttali rek di fàttali suma boppa tamit raxas leen di na raxas seen loxo yi di sol face mask ba pare ñuy moytu ñuy moytu public gathering si saa yu ñu gaadee nañ def social distance. loolu rek moo ñu mën a sobelloo si feebar bi nii feebar bi kenn dadeewul mbir la feebar bi moo jaxal àdduna si yëpp lan la ñu mën a def mucca si feebar bi nii muy lan foog ñuy raxas suñ loxo yi di sol fee su mag si loolu rek moo ñu mën a muccaloo si feebar bi may may ñaan tamit sama mbokki ndaw yi ñi nga xam ne ñoo ne toog si vuu yi di ataaya ñu leen a ñaan de ngir yàlla saa yuñ toogee si vuu yi wala ñuy toog si gote yi nañ def social distance bare ñuy nekk seen ñu amee hand sanitizer suñ loxo yi wala ñu amee li nga xam ne mooy butéel wu ndaw boo xam ne wala butéel yi nga xam ne am na eau de javel su booy ñëwee rek ñu jox leen ñu seen loxo yi su boobaa a muccal muccal ñu yëpp right now ni ñu ngi leen a ñaan rek ngeen def loolu noonu fu nekk ni ñu ngi nii fijaral hearing din ne stores yi buildings yi ni moo demee biir Banjul jéggi na dayo ñuy ñaan rek autorités yi nañ si jéem a taxaw comme niñ ko dee waxee rek dëkkukaay moo ñu diñal moo ñu gënal dencukaay soo ñu ngi leen a ñaan rek ñi nga xam ne ñoom moom seen kër yi ñi xam ne ñu ngi koo jaay nañ ñaan rek suñ koo jaay daal ñu ko jaay ko xam ne da ko saba kër ñu mën a am fu dëkka because am na foo xam ne dafa foo xam ne puy lifin la puy ñu ngi nii nag di daje ay ay police officers soo leen bàyyee these people are police officers so ñoom tam ñu ngi def seen patrol ñu ngi ñu ngi def seen patrol some stuff like that so these people are police officers so yeah So, are we able to follow you guys? So these people are police officers. Uh, they are not. They are doing a great job. Definitely, police. You know, I'm gonna judge for that. So how is it? These people are police officers. They are doing a great job. Definitely. That's another. Thank you, friend. Thank you very much. That's mean these people. on Yeah, you can go with it. No, uh, the sir can't come with it. Turn, turn, turn, turn. Yeah, let me go. comme moom la nguur gi tiral muy naan kenn la bu ñu fekk si mbedd bi suñu fekk bi ñun dinañ am problème problème five thousand dollars yi moom la see so ñu leen a so ñu ngi police yi right ni ñu ngi boori Clarkson di follow police fi ñi nga xam ne ñooñu la gaay jàppa am na ñu gaay jàppa nag so police yi la ñoo jëm a toppa nii ñu nga xam ne ñooñu la gaay jàppa ñu ngi ngi kenn street ñu ngi Clarkson still now si boori garage bi boor boobu lañ nekk pour try pour follow pour follow police nga police yi duñ ñu mel ni macha allah policiers ngay def seen liggéey te ñu ngi leen a ñaan rek tenacloog wax nañ ko tenacloog bëgg ñoo gis kenn si mbedd bi so police la ñoo jéem a try ñu toppaleen moom la ñoo jéem ñu ngi nii towards boori ñu lañ nekkee nii fi a toppa police yi ñu seet ñan lañ jàppa soo ñoom la jëm jëma toofa nii ñu ni mbori si gamtel bi side bu leen nekka di wars bi dem a Johnson police yaa cross noonu kenn de dewu ne ñoom ñu ngi wari Hagan ñoom la ñoo a àndal ñu jéem a seet ñallaga téye ñu ngi nii di koof séegaan kuy jiitlante ak police yi ñoom ñoo nekk noonu noonu suñ kanam ñi nga xam ne ay am nañ ñu gars yi jàppa comme niñ ko waxee rek mbokk yi Sahel Network TV mooy YouTube channel bi Facebook page bi muy laan Sahel Entertainment Studio mooy Facebook page bi foofu ngeen mën a seenee seen comments yi right now ni ñu ngi nii séegaan right now ñu ngi nii xëgaan jiitlante ak police yi police yi ñoo nekk nii suñ kanam am na ñu gaay fekka am na ku gaay di am na ku gaay di ritee am na ku gaay ritee nii ñu ñàkka ñu xaw a jegeñ ci waxtaan ak ñoom tuuti parce que am na ku gaay téye comme niñ leen ko waxee rek ñu ngi nii ànd ak gars yi ànd ak police yi si naaw yow gis ngeen leen ñu ñi leen téye ñoom ñoo nekk nii ñu ne police yi ñoo jiitlante ak ñoom ñu ñoo nekk gars seen gannaaw soo comme ni ñu ko ñu ngi nii xéegaan di ànd ak police mooy patrol team bi nga xam ne moo nekk Banjul am nañu gars yi téye naaw gaa ngi continuer seen patrouille si te ñu ngi lay ñaan rek ngeen follow ñu ci YouTube channel bi on Sahel Network TV comme niñ ñen ko wé rek comme niñ ñen ko waxé ñu na a lek ci sen comment ci yi ngeen jëf jërë ngeen jëf ñu ngi ni amna keen ko ku gaay capture ñu ngi ni ak gaay yi am na ko gars yi capté mu ngi nii soo leen bàyyi xel moom tam téye nañ ko gis ngeen ko am na ko gars yi téye léegi léegi nii soo ñu ngi ànd ak gars yi soo ñu ngi nii ànd ak police comme ni mu leen ko waxee rek police yaa nekk nii suñ kanam police yoo nekkoon yi suñ kanam ñoom lañ àndal am na ñu gars yi téye comme niñ leen ko waxee rek still now ñu na gars yi ñoo àndal ñu na jaajëfal rek seen commune si ku si mel ni maas li nga wax dëgg la am na si koo xam ne nag moom dañ ko téye bu yàggul léegi-léegi nii ñu ngi nii dox sin lañ nekka nii am na si koo xam ne moom nag dañ ko tiye ak tay moom lañ ko fekkee moom moom lañ ko fekkee woon si poosa muy jël soni xéegan noonu so ñu ngi nii di koof ti woot kuy dem boor yi la suwaaf boor boobu lañ nekk still naaw ñu ne police yi ñoo ànda so leen bàyyi xel ñoom ñoo nekk nii nii suñ kanam ñu ngi leen a fulu am na am na ñu gaa yi nag so koof nañ boori kenn soit so ñoom koof nañ boori kenn street so ñu ñoo follow gaa yi ñu ngi duggee di WhatsApp di WhatsApp boori xëy na ñu dem gaa yi police yi ñu dem boori comme like boori piñaay yooyu noonu boor boobu noonu la gaa yi duggee ak den Clarkson so ñu ngi nii di koof bor yi Clarkson la ñu koofee ak gars yi still now ñu ne police ñoo ànd so sinon ñu ngi topp police yi waaye nag dafa mel ni police yi ñoom dañoo xaw a réer tuuti kon ñu ngi try pour mun a fan lañ leen a mun a gise ñu ngi nii boori lasuwaaf boor boobu noonu lañ nekkee ñu ne ak gars yi down there goes through it, drops in. Profondo. No. So ñu ngi nii ci dopsin bi mu ne corcho comme ni nga ko waxee rek Sahel Network TV mooy YouTube channel bi Facebook page bi muy Sahel Network studio police ngi nii gis ngeen ne still now ñu na gaay ñu ñoo ñom ñoo romb non amna ñu gaay yi téye still now ñu ngi na fulu ñu ngi na a fulu jërëjëf Pa Jobaate gis nañ sa comment yi ñu ngi laa jaajëfal rek ñu ngi leen a jaajëfal yéen ñëpp seen comment yi di leen rafet di rafetlu seen comment yi ñu ngi leen wax ne subscribe leen si YouTube channel bi muy Sahel Network TV muy YouTube channel bi Facebook page bi muy lan Sahel Entertainment Studio mooy Facebook page bi so still now ñu ne police yi ñoo ciitlante ñu ne gars yi ñoo ànda nii so ngee woos kuy dem bori Limon Limon lañ nekkee ni ñu ngi koof on our left hand side kuy dem ànd ak police ñom ñoo nekk ñële suñ kanam amna ñu gay téye nak amna na ñu gay dem bori bokul o xooli so ñu ngi woot fi dem ci bori police station bi ñu ngi nii bokkul kuy ànd ak gars yi kuy dem ci police station bi building cover here rek foog ñu respect loi bi li wax ñu ngi ni bokul woor of kuy dem ci bori police station bi fofu lañ nekk nii gis ngeen police yi ñoo lañ ci déposit ñi nga xamne ñu ñooñu la gaay jafa comme ñu ñaan ko comme comme ñu ñaan ko waxe rek mbokk yi ñoo ci sa xel Sahel Network TV comme réeréewu njër ne gis ngeen ñi nga xam ne ñooñu la gars yi téye Gambia nañ respect loi nañ respect dañ ne ten o'clock bu kenn génna gis ngeen ko gis ngeen ñu gars yi jàppa muy ñan ay nit la gars yi fii si biir Banjul fii nii ñu ngi nii si police station bi réerewul ne am na ñu gars yi téye muy lan kafiw moo fi am biir Gambia ñu ngi nii boori police station muy bokkul foofu lañ nekka nii muy police station bi ñu ngi nii ñu ngi dugal ñi nga xam ne ñooñu lañ jàppa gis nañ ci benn jigéen bokk na si jigéen bokk na si moom lañ téye nii muy ànd ak police officers yi soo mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee rek ñu ngi si bokkul ci police station bi bor boobu nañ nekkee du ñàkk tamit ñu xaw a jegeñ tuuti am xëj na maay bi dinañ am ñu ñëw wala seen eso bi soo comme ni leen ko waxee rek nii si boori bunti police station bi foofu lañu nekk nii comme niñ leen ko waxee rek Gambia bi ñàkk kafiw moo fi am ñu respect loi bi respect li nga xam ne moom la loi bi tiral muy lan ten o'clock ten o'clock la ñu wax ne ñëpp si la ñoo seen kër yi plus please ñu ngi leen a ñaan ngeen respect loolu noonu soo ñu ngi ni si police station bi fii nii ñu ngi ni si police station bi gis nga du ñàkk gis ngeen am na ñi xam ne ñoo ñu leen deposit fii nii si biir police station bi so ñu ngi leen a ñaan ñu leen a ñaan comme niñ leen ko waxee rek ñu respect loi bi ñu ngi leen a wax rek comme niñ ko waxee rek nañ respect loi bi respect li nga xam ne moom la góor gi teral gis ngeen ko is and right now ni ñu ngi nii si buntu police station bi so kon ni ma leen ko wax rek Sahel Network TV mboolem loo xam ne réer na la biir Banjul rek far nga ko mën a amee muy Sahel Network TV si YouTube channel bi our Facebook page is mooy Sahel Network Sahel Entertainment Studio mooy suñu Facebook page bi foofu ngeen mën a sene seen comment si gis ngeen ko ñu ngi nii si boori police station bi am na ñoo xam ne nag dañ leen téye ñoo deposit lan si police station bi right now ñu ngi nii fii nii nga xam ne mooy Higa mooy bokkul foofu noonu lañ nekka pour ñëw pour ak police yi nga xam ne ñoo doon def patrol team bi foofu noonu lañ nekka mbokk yi comme ni ma leen ko waxee rek lan moo ñu mun a muccalloo si feebar yi mooy lan foog ñuy raxas suñ loxo yi di sol suñ face mask yi ba pare ñuy def social distance kon nii rek kon ni ma ne ko su ma nee raxas loxo yi au lieu nañ meeg soo ñuy def nii suñu hand sanitizer si wala oo suñ amul hand sanitizer sax ñu def li nga xam ne mooy eau de ak omo def ko si butéel si doxoo moom lii rek moo ñoo mën a sowelloo si feebar bi nga xam ne moom la àdduna yëpp di jooy fu nekk ni muy lan covid 19 muy lan corona coronavirus ñun ñun ñu ne amul amul garab loolu lañ mën a def mën a sowe suñ boppam muy always ñuy raxas suñ loxo yi sol suñ face mask si ba pare ñuy public gathering ba pare saa yiñ toogee def social distance loolu ak lañ am li ñu leena wax comme right now ni ñu ngi ni fi ni gis ngeen dafa empty amul ken ko xamne ñu ngi ni jillante ak police so ñom right now ni déposé nañ ñi nga xamne ñu la gaay jafa fi ni nga xamne moy police station bi fi ni comme niñ leen ko waxee rek sen len sen comments on Facebook page moy lan Sahel entertainment mooy Facebook page Sahel entertainment studio mooy Facebook page bi foofu ngeen mën a sene seen comment si soo leen ñu bëggee toppa mooy si leen si YouTube channel bi Sahel Network TV mooy YouTube channel bi foofu ngeen mën a nan ngeen mën a def pour mun ko am mooy ngeen foog ngeen subscribe on Sahel Network TV si YouTube channel bi di ngeen mën a am mbooleem loo xam ne luy xew Banjul jërëjëf mbokk yi nga xam ne ñoo ñoo seetaal fii si Sahel Network TV ñu ngi nii biir Banjul ñu ngi nii right now at Bokkul jos si booli police station bi foofu lañ nekk nii di taxaw di jox leen li nga xam ne mooy xew Banjul li nga xam ne moom la loi bi santaane biir Banjul comme nuñ leen ko waxee rek mbooleem loo xam ne réer na la biir Banjul rek foo ko mën a amee muy fan si Sahel Network TV Sahel Network TV mooy YouTube name bi on Facebook page mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee rek gis ngeen ne gars yi arrêté nañ leen arrêté bi mooy lan foog ñu arrêté bi dañ leen arrêté nga xam curfew bi moo loolu moo tax am na si ñoo xam ne curfew bi dañ leen téye am na si ñoo xam ne nag xanaa ñu jëm a jegeñ laajte police office bi ñeneen ñi lan lañ leen téye ma xamoon dogo, ma fa dandu go way ni ñoo yàlla nu mu ko tara ña to xeya su ma xamoon du go way ni ñoo mu tara hakilo le jom fata lundo sitan kumbota mo mo le malo ya ka fan dunia betene ala te ya fula mo jawol ma modo ka musoke ko musole ma wulu wodo bi je to kunimbali alimu do fana bi je kadri sota di wulula a di wọn kan ke basi to se mun je to to je la bulo ye mun dada bulo wole ka bondi mandinko le y'a fo itele y'a fo ni y'a miirɔ muso ka di wulu a fa ye tele fa ye woma ta fa ye de bisalo wo ɲama duniya fele ni amira miira ala bɛ sinɔ la

dañu dugu a dugg ñanta duna dami ñun sigi xol bu baax dañu war a dugg duna dami suma duma fu dan dugg way ni njoo yàlla nu mu ko tara ñato xeya suma xamoon duma fu dan dugg way ni njoo yàlla nu ko tara xeya suma duma dan dugg way ni ko tara xeya suma mangi nu yu kep ku fonku jigen pege waaw mbokay yi ñu ngi leen jaajëfal rek di di leen di leen jaajëfal rek di leen wax ñu jégalu si dog-dog boobu noonu lu waral loolu rek amen di ñaaka tamit am network problème loolu moo waral dog-dog bi waaye war nañ ak yéen kon ñu ko ray naa ñu ngi nii bokkul si police station bi lañ ñëwoon because am na si ñoo xam ne dañ leen téye woon téye bi mooy ne am na si koo xam ne nag moom dañ ko téye jàmba am na si ñoo xam ne moom dañ leen téye si ngir koffiw bi ten lañ leen waxoon waaye foog naa dañ leen fekk si mbedda bi because ten moom passé na fu nekk dañ leen jàppa so ñu ngi nii nag bokkul still naa si boori police station bi foofu lañ nekka boori police headquarters bi foofu lañ nekka jaajëfal rek seen commune si comme niñ leen ko waxee rek fële la ñu si YouTube channel bi muy Sahel Network TV mooy YouTube channel bi Sahel Entertainment Studio mooy Facebook page bi foofu nga mën a seen seen commune si ñu ngi ñëwaat na rek di jég di génn a bokkul kuy dem dugaat si yeneen area si police yi nag ñëw jot nañoo jàppa biir Banjul fii nii ñëw nañ si police station kuy déposit ñi nga xam ne wala po yung isilent yung nga hamna mo police station cũng nhân cơ so kom niñ leen ko waxee rek Sahel Network TV mooy YouTube channel name bi Sahel Entertainment mooy Sahel Entertainment Studio mooy Facebook page bi foofu ngeen mën a seen seen comments yi ñu lek a jaajëfal rek a ñaan rek ngeen subscribe si YouTube channel bi mooy Sahel Network TV mooy YouTube channel bi Sahel Entertainment Studio mooy Facebook page bi ngeen seen seen fa seen comments yi dina important trop ñu ngi nii nan boori Makati Square Borwolanyake Borisian Mary School because we dem do words of Independence Drive boor boobu noonu dañoo xeet boor boobu la ñoo Independence Drive fofu non lañ nekk ni muy fan muy boori Makati Square bor boobu non lañ nekkee mbéeda bi mom set na comme niñ leen ko waxé rek mbokay ñu lañ ñu ko sétan live muy fan Sahel Network TV ñu nga xamné moy xew Banjul Coffee bi nga xamné mom la do wa bi santane gis nañ Independence Drive dara ko fi mbéeda baa ngi set wecc comme ni ñu leen ko waxee rek Sahel Network TV mooy YouTube channel bi foog ngeen subscribe ngeen mun a am suñ programme si Sahel Entertainment Studio mooy Facebook page bi foofu ngeen mun a seen seen comment si di leen jaajëfal rek ñu ngi right now ñu ngi still now ñu ngi Independence Drive ah, boori si boori Makati Square boor boobu noonu union was here kuy dem boori boori garage yi Bakaw mu fan mu ngi Sam Jaak boor boobu noonu lañ nekkee yi nga xam ne fan la museum bi nekk boor boobu lañ nekkee comme ni ñu leen ko waxee rek ñu leen jaajëfal rek si seen comments yi jërëjëf mu mu Lamine Diagne न्यास شيكمে জিনি লনা জাজাফলক সستين নিনি ইনফেরেন্স ড্রাইভ সিবরি লুপটান ভি জনসন জ বর্মুলো নিকে আমনি লল অ্যাক্সিডেন্টাল ইমার্জেন্সি ইন এরিয়া বুবুলন নেকে সাইড গুন লনে রেননি লুপটান সিবরি মিল হসপিটাল ডি ইনফেরেন্স ড্রাইভ এরিয়া বুবুলন নেকে গিসন লিন নোকা টনি remember I'm not in a motor the, the double signal so maybe more na am these people are police officers or lenen like so din ni ni independence drive okay these people are red cross red cross ñi nga xam ñoy red cross ñi nga xam ñoy pompe de cabi non tamit ñu ngi def seen liggéey wax digal diggante yalla Red Cross ñoom ñu ngi pompe Banjul ñu leen jaajëfal lekk si loolu noonu ñi nga xam ne ñoo ko organise muy lan One Gambia Covid 19 team bi muy doomi waa Banjul ñi nga xam ne ñoo organise lii di leen jaajëfal lekk ñoom tamit si seen taxawaay si feebar bi nga xam ne amul garab naka lañ mën a def pour mën a sauver suñu boppa si feebar bi muy lan foog ñuy raxas suñu loxo yi di sol suñu face mask yi di moytu public gathering fii nii saa yuñ toogee tam ñuy joxe social distance loolu rek a ñu mën a sawelloo si feebar bii nii comme niñ leen ko waxee rek right now ñu ngi ni Independence Drive si boori BCC comme niñ leen ko waxee gis nga Independence Drive ni mel moto yi double parking ñuy ñaan rek autorité si especially city council ñuy ñaan rek at least ñu jéem a try utal ñu fi nga xam ne foofu la ñoo paagee suñ moto moo dëggal ne yàlla waa Banjul laay guñ ko ba pare ñuy ñaan rek ñu try ñu set sala ñu set ñu setal dëkk bi ñu ñaan rek waa BCC ñu jëm see jël matuwaay matuwaay yu mooy lan ñu dimbale ñu si ay paanu mbalit dimbale ñu si li nga xam ne mooy moto yi nga xam ne ñooy tuur mbalit nañu dimbale trop ñii ñooy Red Cross personnel si nga xam ne ñoom ñooy pompi dëkk bi ñoom lañ dajal ni muy fan muy Moscrot foofu lañ nekk ni ñoom Red Cross yi ñooy pompi dëkk bi muy Red Cross si ñu ngi pompi bi kantin si bàyyiñ dara moto yi nga xam ne ñoo paak sax ñu ngi leen a pompe pour rek pour ñu mën a mucca si feebar bi nii ñu ngi nii nag di koof nga xam ne mooy Lancaster foofu lañ nekkee nii di koof Lancaster lañu ñoo dugga nii lankasta lañ doon dugal ni foofu lañ kuy dem seet area bu Lancaster dafa mel ni Lancaster moom dafa empty comme niñ leen ko waxee rek Banjul respect nañ luwa respect nañ li nga xam ne la moom la nguur gi tëral muy lan bëgg ñoo gis kenn si mbedd bi bàyyi ten so ñu leen a jaajëfal ñu ànd si comme niñ leen ko rek si facebook page bi muy naan Sahel Network TV studio bi wala mooy facebook page bi Sahel Network mooy youtube channel bi comme ñu ngi nii Lancaster foofu noonu lañ ne ko coronavirus is a serious and deadly disease affecting the entire world. Gambia continues to register more positive cases. Do not wash your hands with stagnant water. wash your hands with running water. Avoid social gatherings, naming ceremonies, and weddings. Avoid eating from the same bowl. practice social distancing. To protect yourself and your family and to stop the spread of coronavirus, stay at home. yala dunia kasara muso da manilara muso te tinyala na tinyata kewle ya tinya wonya ma meri te nyuli nyunjige ndanyi wara sigi holdupa inyi wara dugu nyanda duna dami nyunjige ndanyi wara sigi holdupa inyi wara dugu nyanda duna dami soma hamon duma fudan dugu wai ninjo yalo no nyato heya soma hamon duma fudan kataranya tohe summa hamon duma fudan dugu ay ninjo yalanu mun kataranya tohe summa hamon duma fudan dugu ay ninjo yalanu mun kataranya tohe yeah maginu yuke puku fonku jige nhưng uh, problemu min ye lon ko wole be duniya be tora kan k'a fo min ye climate change uh, mandinka kan tun sa fono i k'a fɔ ye ko alhawa falinŋo falin falinŋo because alhawa ka falin ne bari uh, a falin ɲa a tata sanji jamal to min ye lon ko a falin ɲa nata saŋar kana mantoro naati ntol hadamadiŋol kan ku wo kuman wo saabu fo ntol hadamadiŋol faŋol la keeña na na munafaŋol la ala ye so feŋol meŋ na mbe munafaŋ na wol la ñaameŋ wo le lan natambita so wo la natam wo wo naatam mantoro laantol kaŋ so niŋ ko mbe wo uh, tala la wo to uh, wo mantoro tala la ñanta juuberi ke la mbe muna fanna feŋol men na ñaaɗi le pour ka ko aman lanna tambi pour sama kama, kudol bi je uh, eh, menol sama wol fanan se munafaŋo sotono je so bari muna munafaŋol lanna ta doroŋ mantorol le kana so wo mantoro wo le climate change be saabu so pour ka uh, kumo sutiyandi komin sayin na baluña ñanta wole falin na ñanta na ndanangul marala ñaming asatara tara man lan na tambi ka, ka, ka ndanangol tanka ka je ko ntol si muna fanga la sama dinengul fanaŋ si muna faŋa coronavirus is a serious and deadly disease affecting the entire world. Gambia continues to register more positive cases. Do not wash your hands with stagnant water. sure you wash your hands with running water. Avoid social gatherings, naming ceremonies, and weddings. Avoid eating from the same bowl. practice social distancing. To protect yourself and your family and to stop the spread of coronavirus, stay at home.